yor sa ay vidéo intime maanaam nan la demee ba mu yor sa sa sa sexe wala sa vidéo intime nan la demee. moom déjà jëlaguma en tant que soxnaam consommé guñu suñu mariage. vidéo yooyu noonu si takk bi la ma fekk fekk may sëy ak moom si takk bi la ma fekk fekk takk na ma ba pare en tant que jabaram. vidéo yooyu moom dafa tàmm di filmer nit ñi di enregistrer nit ñi loolu moom jëfinam la noonu lay doxalee. moom noo fees moom noo fees de surveillance kër gi mu nekkoon ak Mia Guissé sax dafa ma won tout dafay doon yor caméra de surveillance lépp la yor. si hmm. ordinateur am boo fi woon ordinateur am da ngay gis day filmer lu mu jox filmer lu mu jot filmer te lu mu jot dafay enregistrer. Hmm. ok ku jugul rek mooy def noonu. ok cinquième demande bi ma laaj lan moo indi seen problème yéen ñaar ba tax yow nga bëgg ci génn ci internet bi ne da ngay yàq nooy fés da ngay fësal ay affaire da wax ci moom maanaam seen problème yéen ñaar lan moo ko indi. yàquma ko jubluwuma pour duma yàq nit. waaw ñëwal ñëwal ci lan moo indi seen problème. man ak moom. Hmm. jour bi mu waroon ñëw fii si kër gi sama kër parce que moom moo a fekk ba pare le 7 avril la ma takk ci weeru koor boobu ma ne mu ne day toog xaar ba koor gi paase muy door a ñëw ci man boobu takk na ma ba pare li may wax nii le 2 mai la yàggul dara même pas une semaine mu ne dafiy ñëw dagg biyem réserver biyem mais boobu mu ngi def voyage yu ndaw ci suuf ay Panama ay yeneen dëkk ci suuf ci bato bi la doon jaar. Mhm. ba mu jugee foofu ne directement day ñëw ci man. Mhm. man tombeek ma dem liggéeyi ji ma ne ko bu fekkee maa la jiitu kër ga. maa ngi jël clé bi maa ngi ko déposé déposé ko fenn ne ko su si mailbox bi ne bu ñëwee mu jël ko foofu mu ne ma waaw mu ñëw jiituma ma si kër gi man damay liggéey man quatre heures si ngoon laay dugg wàcc minuit trent moom moom ma jiitu ci kër gi ndax volant bi onze onze heures vingt trois heures quarante quatre lay wàcc fii la wàcc ci Ohio Dayton aéroport yi man mënuma ko jëli parce que liggéey la ma fekk ma ne ok soo ñëwee man double clé laa yor maa la tegal caabi bi fii soo ñëwee nga ubbi kër gi dugg mu ne ma waaw si la jël aéroport ba ci kër gi man jëliw ma ko ci liggéey la ma fekk donc ñëw na ci kër gi xool na sama dëkkuwaay gis na musu fee ñëw boobu moom c'était la première fois bu mu fi ñëwee musu fee ñëw xool na sama dëkkuwaay xam li ma li ma def yëpp li ma sacrifié ndax moom dafa ñëwoon yéerlu ci sama vie ñëw yàqal ma sama àdduna loolu la jublu woon parce que trois jours la fi def yàggu fi trois jours la fi def yàggul ci kër gi trois jours yooyu yëpp dafa dafa ma mettital naqaral ma yàq sama àdduna jooyloo ma teree ma liggéey liggéeyu ma guddi liggéeyu ma bëccëg te ku ma xam-xam ne maa yor sama bopp yor sama lépp kenn yoralu ma sama dara sama papa dafa teel a génn àdduna dëkk bi ñëwuma fi pour bon bu doon bon ba tey bon naa fës naa si réseaux sociaux yi mais yow xamoo ma keneen keneen xamuma mu suma génn si réseaux sociaux yi ma sama àdduna sama dund sama vie dama ko vie dama dund privé ba fu ma toll nii ci xam nga bon man nag comme dama wax ak ay mbokam joxe kàddu ba pare maanaam kilifaam ñi nga xamante ne ñenn ñi xam naa leen ñeneen ñi démb laa leen xam comprendre nga ñoom ñëpp dama waxtaan ak ñoom joxe sama kàddu te gor moom gor rek lay doon comprendre nga donc su ma expliqué dafa mel ne damay xaawi sutura daal comprendre nga vraiment nekk ma ci yooyu su ma xamoon ni nii sax du ma si dugg comprendre mais tamit mënu ma ñëw rek comprendre bu ma sañoon daal li ma la ñaanoon rek sutura comprendre dëgg la sutura parce que biñ koy dafa tegu ci lislaam ñu def ko ci islaam leen nag moom laa xam mooy bi ma koy def def ma ko pour kenn def ma pour benn sénégalais nëbb tuuma samay mbokk yëg nañ ko ñi ma comme ay mbokkam yëg nañ ko donc ci siraatal mustaqim lañ ko teg bon li xew nag man nag du ma ci dugg du ma ci wax comme que réglé naa ko ak mbokk yi ba mu rafet ba pare soo bëggatuma mu mu am dara lu ci xew comprendre nga. dëgg la. loolu daal parce que ñoom daal yow tamit nga dimbali ma ci bu baax a baax a baax saa yi xoolal bàyyi mu mu mu seet quoi. non man ne lu ma la wax nee naa la man dugguma ci problème mu kenn tey ba ma la woowee nee naa la moom moo ma contacté. nee naa ko yow yaay wër ci internet yi yaay wax moo li jënd sama numéro woo ma man amul ci ku may dugg man yow rek laa woo tey pour déglu sa version yow rek laa woo tey te yow li nga ma wax yan na maanaa dégg naa li nga ma wax lépp loolu nekkul lu may waxaat fii waaw kay léegi moom moo ma woo contacté ma wax ma ay affaire am wax seen problème waaw kay noonu la demee moom mooy dem ci internet yi moom mooy bind yow ba tey gisuma la nga dem ci kenn gisuma la nga dem ci benn site internet bind lu wo gisuma na video yi mu nan yor ko gisuma nga wax ci dara man kay limako wax leer na non ki la rek xelu xale la rek waaw xelu do la am solo waaw ye bal, ye bal, na ko graw yëpp am solo jeexna yalla baxna kon baxna yow ma ma ngi lay jaajëfal jërëjëf jërëjëf dégg ngeen ko tay nak man ak mom waxtan nañ lu bëri waxtaan lu bari audio yaangi fi euh ki yaangi fi mais dafa comme comme bugul manam kiyul manam bëgg na manam ñu sutural gel bi ak leneen leen li ci xew motax teguma ay audio wala may tek ay enregistrement man xam nga ne kumay waxal lepp la yoré comprendre nga bu ay problème amé mais No Face ñewul ci man No Face man mako wo pour déglu version mais gel bi mo chercher sama contact ba ñew ci man parce que ñom jigen ñi dañuy bëgg ngay ñew ci ñom ñu lay tuddal diw yeen ñëpp ngeen jog naan waaw No Face mo No Face doomu kharam la